salaamaaleykum alors maa ngi nuyu suma mbokk journaliste yëpp ak professionnel de l'information et de la communication yi nga xamante ni daje nañu ak ñoom tey ci dëkk bu mag bii di Thiès. li fi indi nag tey mooy ñëw saafonte ci biir campagne bi feeñal suñu yéné waxat suñu mbébét ñi nga xamanteni ñoy askanu Thiès dama wara rappeler né ci parrainage bi Thiès bokku na ci dëkk yi gëna a mobiliser wu pour parrainer donc waa Thiès dama len di delloo njukkal ci yaakar bi nga xamanteni am nañ ko ci ñun yaakar bobu moy ñom ci sen bop ñone ne décider rompre avec la vieille classe politique Thiès tay bo fi ñëwee lepp lo xamanteni dafa nek jafé jafé ci askan wi dang ko fi fek chômage bi foko tak takk weesu bu wesso chômage bi ci walu formation des jeunes l'employabilité foko tak takk weesu jobbas la njëkke tay waye bo fa démé ci jungan ak jobbas yépp liko wër accès bi

hôpital yi nek ci biir Thiès sax hôpital régional bi, xam ngeen ne ñu ci bari tay buñ bëggee faju xam nga ne am na spécialité yoo xam mënoo ko am fi beneen bi mooy Thiès nag bu loolu yëpp weesoo nga xamante ni en terme d' infrastructure li fi war a am des na xam nañ ko xàmme nañ ko mun figurer en bonne place ci suñu projet wàllu raay bi ñun lu ñu gëm la ndax raay mënta ñàkk te fépp fu mu jaar daf koy dundal ndaxte y a toute une économie autour zone de production yi dafa sori zone de consommation yi loolu sax dafa tax li ñuy jënd muy cher ndax fañ koy bayé fa muy meññee ak fañ koy jaayé ji da fay sori lool nak ray bi mom moko mëna lijeenti deuxième réserve de gaz ties la nek muy Kayar lool nak gaz bi ak régler la facture énergétique ak tous les métiers du gaz tay ji ties war nañ ko waajal ci lool doomi ties tamit war nañu fexé waajal leen waajal seen ndaw ci les métiers qui sont autour du gaz. nga xamanteni su boba bés bu tollé ci exploitation ay doxandem du ñëw diko exploiter di leen def ay ouvriers waaye ñoom ñooy téye liggéey bi nekk de vrai un vrai secteur privé national bi nga ni dinañ ci mën a gis seen bopp mën cee dund dund Go xamante bu mucc ayib la bonne gouvernance dinañ ko placer au cœur des politiques publiques lutte contre la corruption la concussion ak lépp li nga ni nasaxal euh, liggéey bi nit ki war a liggéey ci pénc bi loolu ñun jàpp nañ ne bu ñu ñëwee dinañ ci jël ay mesures yoo xamante ni yu forte wane ci tamit yoon woo xamante ni képp koo xamante ni nga ci dinañ la ci yoon ba nga xamante ni kenn dootu ko ñemee xalaat ba koy def. kon daal loolu moom mooy euh, kàddu yi nga xamante ni bëggoon nañ ko seq ak yéen di leen gërëm di leen sant di ñaan waa Thiès yëpp ñu wóolu ñu jox ñu carte yi.